الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكي جولي نيغي سان سونو بروم دي دينك سونو بوب دي لين دينك بوب يالا اك راغال كو سي فوغ لوكو دي ديف اي نيغليم اك باي اي تريم ñu and xamni lool rek moo mën a jëriñ nit fii ci àddina te it nag moo ko mën a jëriñ ëllëg àllaaxira bu suñu borom moom rek xutbay tey jii ab yóbbante la boo xam ni sunu doom yu jigéen yi ak sunu jarbaat yi ak sunu rakk yi ñoom ñoo ko moom waaye nag kenn ku ci nekk ci wayjur yi am na ci wàll bu fekkee yëgoo liy xew nga yëg ni lii mooy liy xew fi mu toll nii tembe yëg ko dana waral nga xam ni njaboot gu jigéen képp ku ko am fi ne war ngaa tiit boo tiitul xamoo jamono nu muy doxee boo yaree sa doom ba mel na mu war a mel nag tax sa xel dal nga ni kii moom wóolu naa ko fu mu demit moom alhamdulillah keroog wax nga loo xamut ndax ñiñ wóolu ñiñ wóolu ñëpp saa bu ñuy daanu seeni jël day metti nga xam nga nit buy yéeg lu mu gën a sori kaw rek bu daanoo ab jëllam gën a metti tey sunu doom yi mënuñoo toog ci kër yi te bu la jaadu bu amoon ci kër yi lañuy toog ndax jigéen loolu moo nekkoon sëriñu lislaam waaye jamono tinki nañu ba gone yaa nga ca njàng ma ñu ngi ci collège yi ñu ngi ci université yi ñu ngi ci liggéeyukaay yi jamono jooju yëgal ni ña ngi fay jaxasoo ay góor te xam nga góor ak jigéen seen ak jaxasoo muccut ay wóorut ndax yonent bi alayhi salaam wax na ca lam ca wax ba noppi te lam wax lu rek mooy li am góor ak jigéen duñu wéet lu dul seytaane moo leen di ñetteel bokk na ci nattu yi gën a metti yu sunu borom di nattoo gaayam yu baax yi mooy jub tege ci yoon bëgg a yar sa njaboot ci njub googu ba noppi sa njaboot jàdd yoon daanaka xaw tuuti kon da nga bébét nga dee sax jóg ci ba ñoo na fekki gàcce gu mel noonu benn borom xam-xam bu ñuy wax ahmad al husayn moo nettali lii may bëgg a wax ci benn kaset bu mu def muy loo xam ni du ay léeb du nit du nit jékki-jékki rek xalimaam ñaw mu daal di koy bind di ko nettali nit ñi déedéet waaye mbir la mu am jamono jooju mbir mi am ci menn réew ci réewi jullit ñi yëgal ni mi ngi am ci réew yëpp jàngukaay ba mu amee yëgal ni mi ngi am ci jàngukaay yëpp ndax am nañ yeneen i firnde yu bokkut ak xissa bi yu wane ni lii mi ngi am fi mu toll nii ci fu mën a nekk ba ci sun dëkk bii ñu dëkk benn xale bu jigéen a ngi nii boo xam ni jàng na ba am njàngam sori mu yegg ba université dugg ci benn faculté boo xam ni lu fay jàng mooy ay teggin nga xam ni am na ñetti àndandoor yum doon ànd àndal te bokk ak ñoom bàyyi wala ndey ak bàyyi kee yeggagul université ma ngay jàng ca collège ya ka ma ngay jàng ca école primaire ya seen bàyyi góor gu baax la woon gu ragal yàlla saa su xëyee ŋàbbu saakoom dugg ci dëkk bi ca barab yi ñu mën a liggéeyee usine yi ñuy jaay ay haricot mbaa yi ñuy jaayee xaal mbaa yi ñuy jaayee xeeti liggéey yooyu nga xam ni daanaka amul solo lool waaye nag na am lu mu dundalee ak njabootam ndax bëggul ñu jàdd yoon bëggul ñu yalwaan bëggul it ñu def naka sudut noonu ndaw si ku yaru la ku baayam yar la mel na ni jigéen ju baax war a mel ba tax na école bi mu doon jàngee mboolem ay collègue am dañ koo ñeewoon ña doon ànd ak moom ay mbokki ndongoom dañ koo ñee ndax yaru na am na kersa waxam bariwut lu jot lay sol te bu ñuy caaxaan mbaa ñuy wax ay caaxaan moom du ca bokk jàpp na ni jigéen ju mel nii góor gu baax bu dégg bëgg soxna bu ko déggee dana ko bëgg ndax loolu la soxla ci jigéen te it loolu la góor ñu baax ñuy wër ndaw si mooy nettalil boppam nee na benn bis ci bis yi damaa génn ci buntu faculté bi ma nekk ci université ma gis benn xale bu góor bu ma fixé di ma xool nee na mu xulli ma xool yu metti ba man li sama xel daj mooy waaw kii daf maa xam wala lan nee na may joxuma ko benn yitte nag ndax yaree nañ ma ma am fulla du ma waxtaan ak ay góori jàmbur nee na ma romb ko wip jàll dem faale wu ma ko nee na mu topp sama gannaaw di wax bi mu toppee sama gannaaw mi ngi wax ah yow de dëgg yàlla dama laa gis rek bëgg la yow de tàbbi nga si sama xol bi fi mu toll nii yow de ni ma a gisee ak ni nga yaroot ni nga baaxee commencé di ko wax qualité yu mu am nee na bi muy wax loolu man tuuti kon ma sama tànk yi jaxasoo ba ma daanu parce que man xaw ma loolu mu ni sama baay yereewu ma loolu te gis ngeen mbokk yi loolu lu am solo la yar sa doom ba mu àgg ca barab yu mel noona ñu koy xooki caaxaan yii muy fénati dem parce que yarewuñ ko loolu loolu foog naa ni ñëpp ko bëgg koy jër wu ne bëgg na doomam yaru ba mel noona nee na fi mu toll ci ci tàng tàng bi man maa ngi ñaq maa ngi ñaq tooy xépp ndax man yarewuñu may faral di wax xale yu góor nee na faalewu ma ko de ma kon di dem ñibbi nee na bi ma yegsee sama fit waa ngi naan tell tell tell ndax tiitaange ju ma tiit parce que musuma am action bu mel ni bu ma gaar sama dund ay xale yu góor di wax ak man waxi caaxaan yooyu nee na ca ëllëg sa ma xëy dem jàngi ma génn tasewaat ak xale bu góor bi yoon nag daf may xool di muuñ mel ni kuy bëgg a reetaan nee na ma daal di koy rombaat wit comme na ma defoon démb faalewu ma ko nee na bi ma ko defee mu topp sama gannaaw di wax lu mel ni lam doon wax démb faalewu ma ko nee na mu daal di may sànni nag ab leetar leetar bu ndaw daa dem yoonam nee na maa ngi hésité ndax naa jël leetar wala duma ko jël sama xel mi ne bu ko jël demal sa yoon kii day caaxa caaxaan meneen xel mi ne déet naa ko jël rek parce que xaw lu muy wax ci leetar bi nee na may for leetar bi ma koy for sama loxo yaa ngi lox nee na ma daal di koy for daal di koy liir bi ma ko ubbee ndekete lam doon wax démb lay feddali rek mooy man de dama laa gis rek bëgg la caaxaan taxumaa jóg te it li xew démb bu fekkee daf laa métti maa ngi lay jéggalu parce que méttal ma taxumay jóg muy muy wax kàddu yu neex yoo xam ni xam ngeen kàddu yu mel nii ci la jigéen ñi ci la leen di góor ñi di naxee nee na muy wax kàddu yu yaru man de méttal la taxumaa jóg damaa jógoon rek gis ni bëgg naa la te bëgguma la pour caaxaan wax ay wax nee na noonu ma laa di xutti fooy wi sànni continue sa man daal xaw ma fan la jëlee sama numéro téléphone bi damaa àgg suñu kër rek téléphone bi sonné bi téléphone bi sonné mu daal may laaj ni ma waaw jàng nga leetar bi wala jàngoo leetar bi ma la jox ma ne ko gis nga yow nag yaa ngi bëgg a ëppal gis nga boo deful ndànk wala nga am ay teggin ci ni ngay lanteek man dinaa la booleeg sama famille te sama waa kër xam nga ni ñu am fulla lañ dañ dóor la ba nga bëgg dee safu leen mu ne ko man de li ngay wax ak li may wax bokkut. man de yàlla daf maa ne may góor gu baax sama famille ñëpp sama baay faatu na sama yaay faatu na nekku ak mag nekkuma ak rakk maa ngi alal nag jigéen ju baax laa wë laay wër gis nga bi mu waxee loolu rek nee na sama yaram commencé daw ci wax jooju gis nga kàddu yi kàddu yi la ñuy fiiree moom la ñuy meebee jàmbaar ju mel ni ndaw si ak liñ ko ca tabaxal lépp xam ngeen kii nurul kun war a nax waaye oxon kay danañ ko nax li tax ñu koy nax mooy lii la ñuy naxee ay moroom parce que jigéen xol bi dafa woyof xam nga li tax suñu borom jël góor dëgëral ko nooyal jigéen dëgëral fitu góor nooyal fitu fitu jigéen suñu borom bu jëloon xel mi mu jox jigéen jox ko góor góor boole ko doolam dooleem dëkk bi lakk waaye suñu borom xel mi mu jox jigéen su ko boole woon ak doole ji mu góor jox ko dëkk bi lakk moo tax yàlla ko xereñ la dafa jël góor ah, xel ma nam xelam jigéen mën a taawee ko àggul fi xelam góor toll moo tax jigéen mën a nax góor fu mu toll moom waaye doole ji nag bu ko jigéen amoon musiba am kon du nangoo nekk jabar suñu borom xañ ko doole man de bu ma la takkee appartement laa lay wutal yow dong yaay dëkk parce que man aw ma yaay aw ma baay te maa ngi nii yor naa oto yor naa nangam limal ko lim lim nee na nag wax dëgg yàlla yërmande commencé maa dugg nee na ma commencé nangoo wax ak moom nee na léeg-léeg mu woo ma téléphone léeg-léeg ma woo nee na ñuy def loolu ba mu yàgg dem na ba léegi au lieu que moom mooy kar-kar sunu génnee ci université man maa yërndu ba xam anam nee na léeg ba yër du ma ko gis sama àddina bi waaj a tukki ndax bëgg naa koo gis parce que yërëm naa ko foofu yërmande tàmbalee dugg fa la musibay tàmbalee dugg nee na benn bis ma génn ci faculté bi ma nekkoon seen waa ji xaw tuuti kon ma naaw ndax kontaan ndax gëj naa koo gis mu ne ma bismillah yegg ci ma yegg ci dugg ci otoom ñu àndi doxantu ak a waxtaan li ñuy waxtaan lépp mi ngi may xool maa ngi koy xool buntu waxtaan ci na buntu kap ci na buntu ree ci jéeku na te yooyu yëpp benn bu ci nekk porte bu seytaane la tey dugg nañ ci wotoom ñu nga wéet te ñaari góor ak jigéen bu ñu wéetee seytaane ñetteel leen arab yi dañuy wax ni kullul xawaadisi مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر njaaxum yi am yépp mbir yaa nga tàmbalee ci xool ndax ki nga xool ba yàlla ne damal sa gis bi soo ko defoon doo xoolu lay fitnaal waaye wa muazamu naari daay gi lakk dëkk bi ah min mustasgari charari ferñeent yu ndaw yiñ doon xeeb bi ngay boyal ferñeent ñi cas nga di ko bu dalé ci mi nga sol dina xam ndax man nga ko man na ko lakk am kon day gu rëy gu lak dëkk bi mi ngi tambalé ci ferñent yu ndaw yi ñu doon xeet na ma wéet ak mom mi waxtaan ñu def ko ay fan ci bis bu ba néna na nañ ma ak mom di waxtaan ba lay dikkal goor ak jigéen dikkal lu ci walu banex fa ñu di ànd njaalo bi ñu àndee njaalo ñaar ba nopi néna bima bi man dama yaakaar ni bi dafa tukki man ni ma yaroo ak ni sama famille niñ ma yaakaare ak mbokk ndongo yi may jàngaloolu yaakaar ji ñu am ci man ak niñ ma nawee jëf ju salte nii mel nii mën naa koo def man ndekete kon yàqu naa te yëguma ko te wallahi yàqu na ndax lii mooy li gën a valori ci jigéen jigéen bépp jigéenu jullit buy dégg sunu kàddu gi na xam ni jigéen bu amagul jëkkër la gën a valori ci moom mooy na pexe ba góoru jàmbur bu mu ko xamal dara saa boo tàgganee ba njaaloo kiiraayu kersa gi doxoon sa digganteeg sa borom dana xotteeku kiiraayu kersa gi doxoon sa digganteeg gaa yu baax yi la doon bëgg day xotteeku yëg-yëg bi nga doon am ci fonk sa bopp même yow sax dootoo fonkati sa bopp te doo xam ne mi lu ko waral sa iman day yéeg ba tiim la comme ni parasol di tiimee bopp boo sàggantul bu jaaree fa du dellu si waat da nga yëg xat-xat ak sawara suy tàkk ci sa xool soo xam ne même boo tuubee yëf yi dana continuer tàkk ci sa xol parce que tuub gi jotewut ak mbir mi des ci sa xol ndax tuub gi mooy yàlla jéggal la ko bañ la ko jéggal waaye des gi ci sa xol gor su moyee yàlla même bu ko jéggaloo ba noppi yëpp ya day des ci ab xolam moo tax Ibn al-Qayyim rahma di wax ni ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla yu dëgg seen xol yi duñu dañ di daggatoo ci bàkkaar yan doon def ba fii ak ñuy borom mu tàbbaleen àjjana yëf ya doog a dañ te it loolu mooy lu wér nag ndaw si nee na ci noonu laa yéegi na man yàqu naa ma ne ko waaw yow lan la mu ne ah non amul problème di garaawut yow sama soxna ngay doon sama soxna nga mu ne ko naka laay nekkee sa soxna te yow takk góoma mu ne ko balaa yàgg dama lay takk nee na ma mer daal di génn sël buntu oto bi wàcc dem nee na bi ma wàccee maa ngi yëg sama xol baa ngi tàkk te mënuma ci dara ndax wóor na ma ne fi mu nekk nii jeex na njaaloo naa ak moom bi ma ñibbisee nee na mënumaa nelaw ma fanaanee xoole ak xalaat man sama famille niñ ma yaakaaree ak sama askan niñ mel ci man ak ak ak di lim yu bari man fi mu nekk nii yàq naa sama avenir yàq naa sama addina nee na waaye su ma toogee yàgg ma xalaat ni waa ji comme nee na dina ma takk ma gis ni solution mën naa am foofu kon nañ parax paraxee yëf yi mu gaaw takk ma mu jeex su ko defee gàcce gi du feeñ nee na ma toog ay fan jàngiwu ma ma jékki-jékki rek téléphone bi sonné muy sama waaj mu ne ma dama laa soxla ci mbir mu urgent mu yàkkamtee yàkkamti dama bëgg ñu daje barab sàngam nee na ma taxañ taxañee li ma sol daal di gaaw génn yàkkamti sax booba maa ngi jàpp ni lii mooy dañuy jàpp bis bi ma war a takk comme digoon na ma waaye bi ma yegsee bi ma nee jàkk waa ji xool xar kanam gi mu ne kamaan dajal ak kii bokkul de tey nee na ma daal di koy nuyu balaa ma fay li ma njëkk a wax mooy bu fekkee sa xel dafa nekk ci mbirum dinaa la takk moom ba yeboo nga génne ko sa xel bi ndax pare pour takk la xoolal ci tasum yaakaar ñaareel bi mooy su fekkee da nga yaakaar da ngay nekk sama soxna jigéen ju mel ni yow xam nga ne man soxlawu ma ko nee bi may yëkkati sama loxo ak bi ma koy mbéj man mi ko def sax tayu ma ko nee na mbéj naa ko mbéj moo xamante ni dañuy këlëb ci suuf mu ni tayu ma ko sax bi ma koy def ndax jéppi ko ma daal di koy wax lu bot ni ko man naa ni bi nga def di ko rectifier ndeke man ku bon ku yées laay jëflanteel nee na waa ji fayiwul mbéj ma tontuwut ci saaga yi waxut dara dafa yëngal benn CD rek daal di may wax ni gis nga lii ma xool CD bi muy muuñ mu ne ma ci CD bi ci laa nar a yàqee sa dund yow man ngay mbéj ndaw si ne ma ne ko CD bi lu ci nekk mu ne ma duggaatal ci oto boo duggee di nga gis lu ne ci CD bi mu ne ma duggaat toog mu jël CD bi teg ko fekk mi ngi def xam ngeen oto yi xewal nañ léegi teg ay télévision yu ndaw ci biir nee na mu teg ko ndeke bi muy ànd ak man di njaaloog man dafa am benn caméra bu mu tegoon fa la di ko filmer nee na ma xool gis ni ma futteekoo ak ni ma meloon ak moom di njaaloo ndeke moom moo nekk ci CD bi mu ne ko CD bii nag lenn rek kay tax sa àddina du yàqu mooy sama ndigal ngay nekk lu ma la digal nga def boo ko defee daal moom amuñ problème waaye soo ko deful dina yàq sa àddina te xam ngeen ne loolu lu xew la jamono jii nit ñi di ko def nee na bi loolu amee ma xool lor yi bu ci gën a oyof seede bi li wir ci wóor mooy bis bu génnee bay man ba muy toujours xalaatatuma sama bopp ndax bàkkaar man ak sama borom la waaye su ma xalaatee sama famille ak yaakaar bi ñu teg ci man lii moom buñ ko yëgee mën na leen a yi sax benn yoon nan laa mujjee waa ji nee waa ji saa su ma soxlaa daf may woo téléphone ma ñëw njaaloo moom mu ni li gën a métti sax léeg-léeg day woo ay xaritam ma njaaloo kii su paree mu dugal ma ci oto ma dem njaaloo kële su paree mu dugal oto ma dem njaaloo kële mu ni baat du ma ko ci teg parce que bu doon suñu jamono ji la ñu ni kon danaa ko dama koy dugal ci Facebook wala ci internet bi comme xeeti xarala yi nga xam moo xew ndaw si nee na ma mujj nag faf nekk jigéen bi moom sama bopp daanaka tàmm naa ko ndax xam nga géej ak mooy yàlla moom bul ci jàng say tànk boo cay jàngu di ca sangu mooy yàlla moom boo cay jàngu rek nga di ca sangu moom moom koy moytul ndax moom bu mu la tis bu mu la laal ma wëlbatiku mujj di ànd ak moom nee na nag li ma gën a tiit mooy kaset bu mu tasaaroo par musiba am ndekki kaset bi tasaaroo na nee na sama benn doomu baay sama benn doomu baay moo ci njëkk a jot ci kaset bi nee na bi mu ci jotee mu àddina dafa xaw tukki parce que xam na ndaw si nee na mbir mi daal di tasaaroo ba sama famille yëg ko sama baay moom ni mu daal di def rek mooy takk ay bagaasam jaay këram daal di génn dëkk bi ankay ah, am na am na góor ñu mel noonu am na góor ñoo xamante ni gàcce bu leen naree am wala toroxtaange dañuy tuxu ñoom attanuñ loolu dañuy wax ni gor boo ko bëggee rey da nga koy tuumaal wolof nee na gor dëgg dëgg dëgg soo ko bëggee rey tuumaal ko parce que gor mënut a dégg tuuma nee na sama famille man it ginnaaw bi laa yëg ñoom tuxu nañ génn nañ dëkk bi ndax sama baay léegi moom bu génnul dëkk bi gàcce googu mënta koo du daale nee na ma continuer nekk di ànd ak waa ji di njaaloo di ma demee ba yëg ni nag mbir mi mën a tuta wëy nee na ci laa ko commencé xalaat léegi njaaloo na ak waa ji seede bi tasaaroo na saa yi bokk jot nañ ci sama baay tuxu na léegi nu may def nam mujj def moo gën a bona ci ndax mooy yàlla nee naa la bul ca jàngu boo ca jàngoo rek boo sàggantul da ca soogu sangu nee ni ma def mooy léegi comme waa ji moo ma doon fexeel bii yoon ma naa ko fexeel ni ma fexelee mooy woo ko téléphone yombalal ko sama bopp ba mu yaakaar ni kon tey jii moom man maa bëgg njaalo njaaloo ndeke maa ngi jël benn paaka denc ko ci sama sitaya yi nee na bi waa ji yëgsee ba dara desul lu dul ñu ànd njaaloo ci laa dal di jël paaka bi rek jam ko ko ci xol waa ji dal di faatu nee na bi waa faatoo dëgg la kaset bi tasaaroo na yàqu naa samay mbokk tuxu nañ waaye nag moom mbir mi daal dinay jeex lii mbokk jullit yi du mbir yuñ jékki-jékki rek créé ko lu am la benn borom xam-xam di ko nettali ci benn conférence bu mu doon def ginnaaw bu loolu amee lan lan mën a jàngee ci xissa bii mbokk jullit yi bi ci jëkk ci li nga ci mën a jàngee mooy yëgal ni yëf yi soriwu la bi ci jëkk ci liñ ciy jàng mooy yëgal ni soriwu la say doom say cousin say cousine say jarbaat say rak ak ñi nga bokkal ndey ak baay yëgal ne jëf ji soriwu nga war a njëkk xam nga ni boo yëgee ne jëf ji soriwu li ngay njëkk def mooy da ngay gën a tiit nag ndax benn am nga doom ju jigéen wala sa mag am doom ju jigéen wala sa rak wala sa ilaaxiri koo xamante ni xëy na ku la jegele wala sa jarbaat ñaareel bi université yi tey boo fa demee dëgg la ña fay dem ñépp bonuñu ñu baax ña ngi fay dem ak a ñëw waaye lii moom ma nga fa te lii may wax ni yàlla xam na ni jàngeewuma fa waaye xam naa ko ndax dama fay dem ci waxtu wu nekk miin fa lool di jokkoog ñu fa nekk di waxtaan ak ñoom borom asamaan seede nañ yii ma ngi fa yàgg loolu moom nan ko yëg ñun ñëpp soo ko yëgee kon suba sax tiitaangi dana daal di gën a yokk soo ne université ñu defee ne école yu ndaw ndawaan da caa mucc déedéet tàmbalee ko ci école yu ndaw ndawaan yi ba ca école yu mag ya yëgal ni lii ma nga fa yàgg bokk na ci liñ ci mën a jàngee mbokk jullit yi mooy fi nii day sawara bi ngi tàkk di alawti ko di wër sunu njaboot ci noonu yëguñu ko wallahi ñu bari ñu ngi yar seen doom jàpp ni fi mu toll nii ay jànk lañ fekk du ñooy jànk loolu bàyyi ko xel am na benn sondage boo xam ne ay borom yi xam-xam ñoo ko def sondage bi li mu génne mooy téeméeri gone yu toll ci sëy te amaguñ jëkkër ci waxtu wi nu toll yoo wàññi juróom ñaar fukk yëpp xam nañ ko ba pare te lii may wax nii lu am la du ay tan lu benn waaye dugg ci biir néegam rek mu nekk ci xelam mu ñëw toog daal di koy nettali déedéet téeméeri ko nay jigéen yoo gis ñu toll ci sëy ci amagul jëkkër jàppal ne juróom-ñaar fukk xam nañ góor ba noppi bokk na ci liñ ciy jàngee jamono bi ñu toll jumtukaay yii nu am yu xarala yi wallaay mbokk yi jumtukaay yu doy waar la waxuma sax lu jëm ci nettali bi ma la doon nettali benn waaye dafay nettali nee na gis nga même hôtel yii ngay dem ngay fanaan ak sa soxla même bu dee sa soxla sax lu jar a def la barab yu bari tey dañ fay def ay caméra de yoo xamante ni moom mooy gis mën ngaa dem fekk li nga nekk sax dug mooy yàlla ak topp yàlla la fekk te sutura mi nga xaawee ko te yëgoo lii bu njëkkoon jigéen ñee ko doon def góor ñi góor ñi ñoo ko doon def jigéen ñi léegi jigéen ñi ñoo ko tàmbalee def góor ñi fi mu toll nii defe naa ñiy déglu rajo yeeg média yi gis ngeen ay nit yu bari yu am alal wala lu ni mel jigéen topp ko ba yombalal ko moom pour mu njaalal yow nga foog ni yombal la fekk déedéet ñu ngi lay filmer su paree lan la lay wax soo ma joxul nangam ci xaalis dama koy dugal Facebook wala ma dugal ko YouTube mu jeex te foofa moom mooy moom daanaka tàbbi jahannam sax a ko xaw a tane ndax doomu aadama mooy yàlla gi nga mooy xamoo ndax da nga alkom doo alku nga wëlbatiku alkuwaat fii ci àddina te balaa dara xew te alkande gi mooy àddina bi yépp xam ne yow moom daanaka def nga musiba te loolu mi ngi am fi toll nii bépp julit war naa bàyyi xel lu mel noonu cig mooy yàlla nga nekk wala nekkoo cig mooy yàlla lu mën a doon bàyyil xel li ngay def moo tax benn borom xam-xam dafa wax ni man day nit ñi jaaxal nan ma caméra de surveillance moo am fii nga commencé contrôler wu li ngay def te yàlla bu waxoon la bu yàgg ni alam ya alam bi anna allah yara xanaa xamoon yàlla mi ngi lay gis te bàyyi woo ca xel mu ne kon li ngay def doo ci am tiyaaba wallahi li ngay def doo ci am tiyaaba parce que yàlla bu yàgg balaa jumtukaay yi xew la waxoon alam ya alam bi anna allah yara xanaa xamoon yàlla mi ngi lay gis alam ya yaalamu anna ya yaalamu sirrakum wa najwaakum wa anna allah allaamul xuyub xanaa xamoon lu feeñ ak lu nëbb guddeeg bëccëg lëndëm ak leera ci bokk yam lépp lépp yàlla muy teg naa ci sama bët وان الله علام الغيوب يلا من كخم كم فلا فين تول ني نين دي فين تول ني ماي واخ اك يين يلا خم ني ليك ليك نيت داف لاي ديس اب بروبليمم فم دو وتال كاي سوليوشن فك موم دا لاي اندي بروبليم بالا كاي دولي امنا بن واي بو خم ني فين تول ني غوني جيجين مين كو توب لومو بيك علال فين مومو سي دارا parce que ndaw si da koo piégé ba filmer ko ci portable am ko ci portable am luñ gis nga yi may nettali nii léegi nekkatut yu ñuy liir ci ay fooy maanaam lu ñuy dund mu jege ñu yo lool la ndaw si da ko filmer ci fo ci ci portable am ñuy mooy yàlla futteeku futteeku futteeku bu bon ndaw si ni ko lenn bis bu ma la nee defal ma nangam defaloo ma ko rek keroog boo yeewoo di ko fekk YouTube fi mu toll nii fu fu ne fu mu nekk fu nekk maa ngi ko xewee muy wuyu lu nekk mi ngi ko koy defal ci àll da ngay gis ni kii réccu na moo tax ma ne léeg-léeg nit ñi danañ ñëw di wut ci yow ay solution fekk ñoom dañ leen indil problème parce que yow doo xam looy wax am na waa joo xam ne jabari jàmbur la ko def ku góor jabari jàmbur la fexe ba njaaloog moom te bàyyi leen xel ni gis nga yi may wax nii déw ma ba ginnaaw waataati tàmbaa di nettil la fa ne fi ñu dëkk laay nett bi maanaam suñu dëkk mooy suñu entourage yi ñu wër pour ñu xam ne maanaam musiba ji fi mu nekk nii léeg-léeg a man na alaw tekk du tàkk ki ne ci biti moo koy séen yow mënoo koo séen parce que yaa ngi tëdd nelaw jabari jàmbur la piégé ba njaaloog moom fekk jëkkër ji dafa tukki fi mu nii fu mu soxla ndaw si dana ko fa woo mu fekk ko lu waral loolu xam naa mën naa bañ a nekk da koo filmé wala da koo nangam waaye nag comme am na bunt xam nga am na loxo boo ko am bunt am na góor ñoo xam ne loolu mu siiw seen yoon ci parce que am na loo xam ne bu siiwee maanaam ñaari nit bu ñu daje woon bir mi siiw ku jigéen ki ci gën a métti ku góor ci am na keneen koo xam ni moom it kazaalika ku góor moo ko pees ci biir sëy la nekk ku góor peese ko ba nax ko njaaloog moom subhaana rabbina al aala yàlla mooy ku màgg gis nga yëf yi dafa jàll lu yàgg ku góor ki moo tëdd ba guddi génn bi mu géntee mu gént soxna si am ku muy ku muy àndal maanaam affaire bi action bi amoon la waa ji gént ci nelaw waa ji bi mu ko géntee maanaam li kën a yéeme mooy action bi na mu amee noonu la ko waa ji géntee waaye nag xam nga gént moom mënoo cee yeewu rek daal di lakk dëkk bi mbaa nga tukkal façon enquête bu ne enquête na ko daw pour bëgg a xam waaye mënta xam parce que ndaw si doom xam ngeen ni la yent doon wax naan ala wala dalil firaas doom njaalo ba bu juddoo xam nga ne moom kañ ko mën a askane mooy kësu ko jur ko kooka ko jur waaye nag xam nga bàyyi ji mënuñu jiwee bàyyam parce que bu jigéen juy njaalo mën naa ànd ak ku nekk lii may wax nii fin lii may wax lii ma mujjee wax nii yàggut li may mujjee wax nii ma mujj baat bii ma mujjee wax moom yàggut amee léegi fi ne mi ngi jur ay jafe-jafe yoo xam ne yàlla rek rek moo ko xam ndax xam nga suñu borom ku maandu la yéen a ngi fàttali ko xutba ji ñu defoon ci njaalo newoon naa gis nga boo njaaloo kër diw joxe fa ñaar dërëm bis bu ñuy njaaro sa kër genn wàllu fifteen lañ fay joxe parce que bor la bu ñuy fayante noonu la ko yàlla dafay jox ba bis sosoo ba tey saa boo njaaloo fenn joxe fa ñaar dërëm genn walu 15 lañuy joxe sa kër dinañ fa jaar te borom la bu lay fay maanaam waxaguñ ay mbiri àllaaxira ak sa digganteeg sa borom ci xam nga góor gi ndialo jabari jaambur mom yow ci l'islam yow ko xam yow kontatoo dañ la war na ray yow xul bu bakkar moo ko jullit te tey li am dafa bari de wallahi wallahi wallahi alazim li am dafa bari bari na lool lool la wax lool li may wax ni bari na lool mi ngi am waxuma ndialo de waxuma xisat ma doon wax tànk waxuma xale bi nekk étudiant waxuma loolu dama ni góor yi njaaloog jabari jaambur fi mu toll nii dafa bari lool lool lool lool maa la ko wax yii saa ca góor ña lay jóge yii saa jóge ci jigéen beneen bi ci des mooy mbokk jullit yi ñu xam ni jamono ji ñu toll képp ku yàlla wërsëgal doom ju jigéen saye boo nga tiit wala fi dañuy wax ni gor dëgg ci bu jëkk nga gor yu jëkk ya ku ci masaana am doom ci jigéen bis di ngay noyyi xam nga noyyi ku doon daw di daw gaynde daw gaynde ba ak ba sobe gis nga noyyi xijjandiku googu ngay noyyi di wane ni man yëkkat ci sama xel dal na nee bis bi nga mayee sa doom bañ teg ko ci ay loxo ñu bari tay ñi ngi mayee seeni doom fekk seen doom bañ sëyee seeni jëkkër dañ gis nga nag ma wax la ko bis ni ki tay solution yi ñuy faral di régler ci wàllu sëy bis bu nekk rek ngay am bind bu bees bokk na ci problème yi koy waral mooy góor day am yaakaar dem ba takk la ñëw fekkul ci yow ak ndaw gis nga problème yu mel noonu du neex a réglé gis nga léeg-léeg nit day nit dañ day am jafe-jafe nga réglé yeewu suba ba ngoon lu ne nga def ko du sot fekk affaire bi ci source ba la mi ngi mel ni bâtiment bi nga bëgg a réglé nga ñëw xool xool gisoo benn fissure ndekk affaire baa nga feesee ca suufu suuf faw nga gas yu bari ay jigéen yu bari nit ki day yaakaar ni kii gone la fekk du gone te góom la bu neexul ab faj ci biir xol nit ki mën naa muñ lu ne nag mën na laa jàppale ma waaye yaakaar ju tas jooju day waral maanaam di ni cofeelam garab gu dul màgg garab gi da koy jëmb rek mu toll nii du màgg mu même boo doon roose bis bu nekk du màgg li ko teree màgg mooy feebar bi dafa nekk ci biir xol bi beneen bi ci topp mbokk jullit ci mooy jamono bi ñu toll ginnaaw moytu ak di ma ni ko yàlla ak góor góor góorgóorlu kenn ku ci nekk saye ngay tànn tàllal sa loxo sa borom mu sàmmal la sa njaboot sàmm yàlla rek moo ci mën dara fi mu nekk nii ginnaaw effort yi ngay def ak góor góorgóorlu gi ndax ndaw sii ngeen dégg jàpp naa ni ak ku ni mel ak ñi ko yaakaaree ba def université ba ay mbokkam di ko nawlu fii la mujj waa kon ndaw si nga xam ne melut nii jàmbareewul nii fonkeewul ko nii xoolal musiba yi xew ci mbedd bi nga xam ne daanaka ay provocation dëgg la jigéen ñi def ci góor yi ñu wóor leen yow ñu bëgg a baax sax boo jaaree ci mbedd bi doo mën a baax lu waral loolu yaa ngi gis yoo xam ne nit nga nit nga te nit yàlla da ko bindee bànneex malaaka du mooy suñu borom parce que dafa amul bànneex doomu aadama day mooy suñu borom parce que dafa am bànneex kon jamono jooju mën naa ne bis bu nekk yaa ngi toll ci guddi gu setama li may jeexale nag mooy jumtukaay yu xarala yii lu waay man na ko def ci di moytu gis nga suñu xeeti appareil yi am na ci appareil yoo xam ne buñ koy liggéey am na ci appareil suñu xeeti appareil yi yoo xam ne bu ñu koy liggéey dañ ciy installé loo xam ne ci biir boo dajji woon portable ba nga dindi loola sànni defaat sa portable du tee nga continuer man a dem kon loolu dalay lay wan ni loolu amu fa njëriñ gis nga loola bokk na ci li koy li li muy liggéey ci téléphone yi mooy daf lay enregistré yow daf lay enregistré yow nga xam ne léegi suñuy noonu jekku nañu ci xeeti jekk loo xam ni même bu woo yàlla defoo dara yow yaa ngi toog ci li nga toog waaye am na yu bari yoo xam ne yaakaar nga ni secret la fekk nekkul secret te loolu mi ngi am ci suñu xeeti téléphone yi loolu na ko bàyyi xel beneen bi ci des nag na nga yëg ni borom bi subhanahu wa taala def na jamono ji ñu toll jamono la joo xam ni gis nga musiba yii saa ko xësee am ci sa bopp moo xam góor gi moo njaalo wala jigéen gi moo njaalo wala wallahi di nga gis ci ak xeetu wàññeeku ak dellu gannaaw aku doye di goo xam ne yàlla rek moo ko xam gis nga bokk bokkut ak yeneen xeeti bàkkaar yi bàkkaar bàkkaar la yépp yàlla nga tooñ waaye bàkkaar bu mel ni njaaloo bokk na ci danger yi mu am mooy yow sa digganteeg sa borom kiiraange yi kersa gi ci sa sa ndey xotteeku yow sa digganteeg sa bopp yow ci sa jimmi bopp yaay njëkk yëg da ngaa jéppi sa bopp sa digganteeg nit ñi da ngay gis ni mu rattaxee rattaxeewut noonu sa digganteeg li nga xamante ni mooy tey jaamu yàlla motivation bi nga am ci jaamu yàlla dootoo ko mënati te it nag mu des nag bàkkaar bi sa borom jéggal na la ko wala jéggal na ko lii nag mbokk jullit ku am rakk wala doom wala koo xam ni jàpp nga ni ma ngay génn ka dama ñëw na tàbbi ci ay noppam ngir mu dugg ci buntu xusu xusu xisrakum jël leen seen ci gën a moytandiku bari waa na kuy ñëw di wax ay wax yu neex fekk yàq la bëgg bari naa la ku lay ree alag la bëgg fa laysu yabdu naabuhu is yagdab gay na wax ne bu réeree wut si la di génne sell wa muy feeñ nga yaakaar ne day reetaan mu ni na daa mer ah wala taxurannaka man yabdu basasatahu minhu ilayka fa inna summa fi l ki lay muuñ ak la ree bul ni bëgg la dong moo tax mu di a def parce que butéel ci kaw la lem gi nekk waaye nekk la ci biir lépp posan la noo ngi ñaan suñu borom mu sàmm ñu sàmmal la suñu njaboot allahuma ahfazna واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك نبيك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك innaka xamidun majid